aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaani irahimi laa hawla wala quwata illa billahi alil azim fa sa yakfikahum allahu wa huwa samiul alim rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta xayra munzilin yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaxi li jalaali wajhika wa li azimi sultaanika sallallahu ala muhammadin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw nuyoo bu sell boobu ñuy wax ni ngeen wéy di abonné tey partage vidéo yi te di ko zem am contentement bu baax si topp gi ngeen di topp liggéey bi di leen di jaajëfal bu baax te di leen jéggalu di ñaan suñu borom mu boole nu baal di jéggalu mbokk yëpp rek ci gëj a teew ci liggéey bi te xam ni jamono moo demee noonu bés bu nekk yàlla suñu borom rek moo ko man tem rek moo ko am yàlla na nu dimbali fàccu ajo biir ak biti yàlla na nu suturaal àdduna ak àllaaxira yàlla bu nu am gàcceeg àdduna yàlla bu am gàcceeg àllaaxira gannaaw loolu di santaat yàlla bu baax a baax di gërëm sunu yaakaar bu baax Cheikh Ahmadul Bamba Xaadim Rasul di ñaan bis bi ñu dëgmal mooy bisu màggal ñi dem si si jàmm dikk si jàmm ak salaam barkab Cheikhul Xaadim barkab Cheikh Saalihu Mbàkke sunu yaakaar ja te lépp loo xam ni danga koy séntu jëm safaan yàlla ba mu ko ca gis yal na saa borom jàmmal ñëpp te kaartanal ñëpp ci barkab alquranu karim barkab xasaayid sëriñ Bamba yi gannaaw loolu mbokk yi di jaajëfal ñi nga xam ne dañuy woo te doon suñuy mag doon ay borom xam-xam doon ay kilifa te rafet xol lool ndeysaan dañu woo dañu ñaanal dañuy jaajëfal jërëmay tudd seen i tur waaye bu ma ko waxee ñoom xam nañ seen bopp ñoo nga ñaan ñaan yooyu yëpp ak mboolem ñaan yi ñu doomu aadama yi di ñaanal yal na ko saa borom nungu te barkeel ko ni fépp suufi te def lépp yiwu àdduna gu àllaaxira te ngeen jiituma si yeen ñi ma koy ñaanal ci barkeb alquraanu karim barkeb sayyidina Muhammad mi nu bokk mbokk mu mel ne tey dañoo indi lu am solo lool mu doon wooj woj ñu bari di ko wax te mënuñu ko ñu nag yoroon ci façon façon yoo xam ne bokkul bi nag bokk ci bu dee comment olof la boo xoolee faida bi da ko xam ci suuf wooj bu am doole la secret bu am doole ci wàllum wooj moo xam sa doom dafa dem moo xam sa soxna dafa dem moo xam sa borom kër dafa dem moo xam sa waajur dafa dem moo xam sa mag dafa dem wala sa rakk te nga bëgg mu ñëwaat te xamoo fu mu nekk nga bëgg mu ñëwaat mbokk na ngeen ma teewal bu baax a baax te xool xawaatim bi nin ko dugalee ak nin ko rëddee nga bindee ko noonu xawaatim bi li ko tënk mooy innahu ala rajhi la qaadirun moo ko tënk ci gépp gépp gépp wet ginnaaw boo bindee xawaatim bi nii ñu ko bindee waaye li ma doon ñaan rek lay ñaanat lillahi wa rasulihi ngir jëmi seydina Muhammad mu nu bokk xam naa am na ñoo xam ne sax dañ ma mere ndax seeni vocal daa yàgg ci machine bi waaye wallahi bu nu ko jàppee bu nu ko jàppee nañuy dimb rek di woote appel direct moo gën nañuy dimb rek ngir jëmi rasulillahi di woote appel direct ndax xam naa lépp nekkul loo xam des na ko mën a liir des nañ ci def nag suñu kéemtalaay kàttan waaye mën no liir lépp moo tax ñaare sax am ñoo xam dañ ñuy woo xaw a dal suñu kaw waaye wallaay bu nu ko jàppee te li ñuy def xam ngeen ni bëgg seeni aaja faju rek a tax ñu di ko def waaye jubluñ ci leneen mbokk yi loolu nan ñu koy dimbalee baax te woote appel direct kon ñu dem ci secret bi ki nga xamante ne bii borom këram daa dem. wala magam dem wala sa soxna dem nga bëgg mu ñëwaat ñaar dina faral di am lu bari takk soxna jékki-jékki bokk yi dox seen diggante woo ko seen kër mu toog fa nga bëgg mu ñëwaat nga xam ni nooy danga ko ca def waaye xoolal secret bi bu baax a baax a baax ñu ko tënkee na nga ko xool bu baax innahu ala rajhi la qaadirun moo tënk xawaatim bi nga dugal ko nin ko dugalee si digg bi si ngay def turam si digg bi si ngay def turam moo xam ku ma moo xam sa soxna la moo xam sa mag la moo xam sa rakk la moo xam sa doom la am na ku ma ko doon laaj secret bi ah, di wax ne doomam dafa dem kon secret baa ngi noonu tëralal xaatim bii ba bunte tëral xaatim nga xool ko ko mën nga jox ko mu liggéeyal la ko nii liggéey nu sell ni ñu ko liggéeyee li suuf nag mbind mi suuf nag moom mooy leeral bi loolu moom jurum koy bindaale loolu moom moom mooy faayda bi li nga xam ne moom la njariñ bi moom na xaatim bi di jariñ lay leeral foofu ci wàllum bindum wolof ginnaaw boo ko dugalee pare mbokk mi ba pare da koy lem o dugalee turi ci bidig bi nga lem téere bi nga suul ko ci buntu kër bi moo xam sa soxna la moo xam sa doom la moo xam ku mën doon dina ñëwaat ci lu gaaw a gaaw incha allahu rabbi sekara wooj bu am doole la sekara wooj bu ama am doole la incha allahu rabbi dana ñëwaat ci lu gaaw bu soba yàlla képp ku ko jëfandikoo yal na saa borom barkeelal la ko ba nga gis ci la ko yàlla njort ci barkeb alquranu karim barkeb seydina muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi